رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم طر رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر فرصة طهر رمضان رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم قط رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نورها سعدوا للأم طر رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان رمضان waaw ah, maa ngi leen di fay bu baax di leen jaajëfal seen teewaay fii si suñu ndogu Gueule Tapée Fass Colobane euh, di leen di di di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di remercier ñi nga xamante ni ñëw nañ tey participer si ndogu patriotique bi euh, initiative boo xamante ni depuis deux ans ñu ngi koy def euh, disons que c'est la deuxième édition première édition bi première édition bi c'était en deux mille deux à cause de la pandémie on n'a pas pu le faire cette année Alhamdulillah, on se retrouve pour euh, faire la distribution du dago patriotique dañ koy def nag du du du du politique du dara dañ koy def parce que dans jàpp ni si liñ bokk muy passif, don de soi pour la patrie daf amusant. am solo te ndogu yii kat japonais, danoo amusant, ni lu am solo la participation en tout cas si voilà dans jàpp ni dal, si si si si don de soi euh, euh, pour la patrie si l'un boobu rek les inscrire donc, euh, euh, ce n'est pas de la politique en, premier lieu, c'est juste une action sociale que l'on fait chaque année pour magnifier. Magnifier ce que nous c'est l'équipe qui est passive, qui don de soi pour la, pour la patrie. C'est ça. Est-ce que nous savez que si nous parlons ici, vous allez aller dans une autre ou ici rek Wow, nous sommes Gueule Tapé face Colobane, donc c'est trois zones. Euh, euh, samedi passé, nous sommes à Colobane, euh, aujourd'hui nous sommes à Gueule Euh, samedi prochain ñi ngi doon ñi ngi nekk pass donc ñi ngi waxale di invité waale ñëpp tamit mën nañ ñëw participer euh si ndogu patriotique bi à pass inshallah le samedi prochain aussi. ndogu patriotique bi est ce que mën nañ xam moy fu muy jógee sen propre moyen la wala. wa effectivement c'est nos propres moyens ñun militants yi nga xamanteni ñun ñoy militer ci zone bi nekk ñoy dajalé suñu doole suñu am-am suñu mën-mën ñew def ben affaire bo xamanteni dañ koy bok ak ñëpp ñun nak parti bi si loolu lay dox. si lu nga xamante ni ñun ñëppay booloo dajalo suñ boole suñu doole suñu xal suñu xalaat ak suñu mën-mën pour def lu nga xamante ni dina am impact ci population yi te toujours duñ xaar dara ci état wala ñu xaar dara ci keneen ñun ñoy jël suñu initiative bop ñun ñoy défal bop suñu lépp suñu suñu bop donc toujours limay wax rek comme du slogan gëm-gëm la mom moy don de soi pour la patrie te ñun ci lool la ñuy dox jërëjëf voilà merci sëñ bi ñu lay waaw doole ziar ñu fay man Ibrahima laa tudd. fekk leen Gueule Tapée ngeen di def ndogu waa patriote yi. waaw mbégte rek nañ ci gis quoi gis ne sénégalais ñu ngi ciy répondre voilà quoi. ñu xam ndogu li euh, ba xam fii la yem wala da ngeen koy décentraliser. waaw non ndogu li moom yàgg nañ ko décentraliser du fii rek parce soo xoolee commune bi Fass euh, Colobane nañ njëkkee quoi. léegi Colobane tey mooy journée bu bu bu Gueule Tapée quoi léegi prochain week dañuy dem Fass defee ko fa. su ko defee commune bi yëpp gis gis gis euh, initiative bi ta xamné ne Sénégal ñu ñëpp ñoko bok bokk quoi voilà quoi. wa suñu propre moyen la nak pour dire vrai moom vraiment kan ñooñu bénévolat quoi sénégalais ñoo ci japp patriote yeeg ñëpp képp ko xamné ne gëm na réewam bëgg na Sénégal gis na ne bon ben bop la comme ni gars di jëma a jéem a xaajale ñëpp ñëpp quoi ñëpp ben nañ suñu initiative la kenn financé wuñu de bonne volonté ñoo fi nekk jàpp si jàpp si combat bi ñu ñu ñu taxawal ko loolu la. waaw dolli ziar di la di ngi maa leen di fay. El Hadj Ousmane Fall. Ah, lan nga ci kii bi mouvement bi. man maay coordonnateur euh, Pastef Gueule Tapée Fass Colobane. Ah. waaw mais tey ñu ñëw fekk leen fii ci Gueule Tapée. ne moom la ñuy faral di def euh, année yi passé parce que 2019 lañ ko commencé lañ ko commencé di def joxe ay ndogu. parce que dans la commune on a trois grands trois grands quartiers passe donc nous avons chaque année ñu fait un quartier bu def nous avons donc parce que problème Covid bi donc nous avons commencé ko ñu Nous samedi passé vraiment euh, joxe quartier ndogu yu am solo euh, ñëwaat nous la même chose mais vraiment gis na taxaway yi nga xamné ne waa tapé mom lañ def waa de tapé ak mais ay ay ay ay sympathisants lañu ay sopp Pastef lañu wala ñu Sénégal bokku nañu dal vraiment japp nañu dal tay ci affaire bi ñu xam bëgg xam ba xam seen propre moyen ngeen ko wala dafa am ñu ci japp suñu propre moyen la suñu propre moyen amuñu kenn ku nga xam que yow yaay yëkkati militant yu nekk ci commune bi ñoom ñoo yëkkati seen xaalis daal di ko cotiser du xaalis bu nga xam ne bu nekk fenn fu nga xam ne que uniquement pour loolu déedéet saa yu ñu ne dañuy def ndogu kenn ku nekk mooy yëkkati xaalisam am na ñenn ñi nga xam ne sax presque dañuy yëkkati seen affaire lépp parce que lii ndimbal kese la donc kenn ku nekk boo ko defee daa nekkal yow yaa koy defal sa bopp. donc lu may woote daal appel bu may lancé mooy

maa lay jaajëfal merci beaucoup. waa kolobaan waa Fass ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. franchement sant na ñëpp gërëm nañ ñëpp waa kër gi sama soxna ñoom Doris ñoom ñëpp kontaan naa. parce que franchement parler coono gi ma ci doon daj yëpp kontaan naa ndax nit ñi ñëw nañu kon sant naa leen bu baax a baax a baax daal. ma jox parole bi nag Aboubacar mu sànni ci tuuti kaddu après Doris kànn kaddu après nag ñu jox sunu grand Mayaabe nag mu toog waxtaan ak ñun tuuti daal. Mayaabe lan may wax. J'ai fait presque 30 ans à la Gueule pour me déménager voilà y témoignage je tenais à le faire Nous sommes ni jeunes de nous adopter le discours avec le parcours du président Osman Sonko mais nous ñi discours bi discours. suivre un seul discours ne suffit pas président bi il nous avait fait un discours extraordinaire un discours extraordinaire mais nous ki incarné nous Nous changé avons changé Nous avons quelle est notre chance il faut que xam kan moi, Ousmane Sonko Ousmane j'ai eu la chance de le connaître en 2002 alors que bi ah, ah, PS ma émigré deux ans après je suis revenu il me reprendrait

magum ne dajul sax mu daj parce que c'était l'inspecteur comme nu bolé te yalla dimbal ma je bi na tek lepp ci yoon rek du am problème ma ci leçon bu que nit li ngay ci mom rek ngay gis les six premiers mois nit jëw ko sama kanam ni ma mayaabe tu as la chance non seulement waa ji na xam-xam macha allah ku yaru la ku meuna a la te fonku na la je dis ah bon mu xawa changer dara ci man ma xoolewaat ko neneen wallahi bobu lañ jàppante mak mom ba tay ji je suis le premier qu'il a adopté dans son cabinet politique ci bi grand ligé na yow wóolu auprès de moi Ousmane li c'est le projet ce c'est le Sénégal li c'est vous mais est-ce que loolu a un excellent discours a un excellent leader mais le leader il peut être excellent le discours excellent mais ses collaborateurs notre chance pasteur, on n'a que des Ousmane Sonko derrière Ousmane Sonko responsable bolim, hein? Ah, intégrité ngay gis ci moom loyauté ngay gis ci moom dal ngay gis ci moom baax ngay bëgg ci moom bañ na ko ba suñu parti kenn fi jëlee dara dañ fi indi donc kuy ñëw di wut si fii du sa place donc mën nañu rassurer ne ñun incha allah bu ñu yàlla dénkee réew mi dinañ ko defar am nañu discours am nañu projet bu wér am nañu leader bu wér leader bi am collaborateur yu wër donc il faut ñu japp lolu téé lolu te gëm loolu ñu waajal n'ak parce que discours yi ñuy dégg ci fan yi neexul il faut ñu protéger sunu waji il faut qu'on protège notre Ousmane Sonko national voire même international wax ki nak bëgguma gudd neex na trop salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Nous, le président Ousmane Sonko nous bëgg ci Sénégal te patriote qui nga xam ne ñoo Sénégal. lu ñu bëgg kenn ku nekk ci sa bopp ci sa commune yàlla may ñu ñu matal